billahi min alseytaani irrajim bismillahi irrahmaani irrahim raditu anil mawla taala allasi wa ahnaani wa akrim bihi rabba asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi ni seetaante di ñu déglu ñu dellu siwaat seen émission bi ñu tuddee madinatu ilmi ñu di ko amalee fii ci seen site bi ñuy wax 24actu ñu dellu ci jataay bi Euh, ginnaaw bu nu santee mbokk yi nga xam ne ñu ngi nuy seetaan ci réew mi ak ci bitim réew di wax na nag mboolem ñi nga xam ne ñu ngi nuy seetaan ñu gën a abonné bu ko defee di ngeen jàppandil vidéo bu génn ci site bi di ngeen ko daal di mën a am kon ñu ngi leen ci soññ teewul képp koo xamante ni yàlla dogal na nga am loo bëgg a siiwali tamit boo jokkoo euh, fii nga xam ne moo di site bi dana la siiwalal loolu jàpp naa ne kon ñu dellu siwaat tey ci ginnaaw bu nu ñaanalee soxna maam Xaari Mbàkke Murtada di ko ñaanal fan wu gudd ak soxna moomi Kebe mu alxaaji Njuga Kebe di ñaan sunu kàddu fekk ko ci jàmm ak tawféex te siyaar baax sëñ Baara Mbàkke mu sëñ maam Mor ñu dellu si ci nen ko baaxoo def ci waxtaan yi tey ñu dellusi ci wàllu li nga xam ne moo di yàq yàq de ku nekk xam na ne sunu borom daf ko bañ. ba bañaale képp koo xam da nga koy def yàq senegal nag daf mel ni bunt boobu buntu yàq moom daf mel ni wax dëgg yàlla dañ ko ubbee ubbee ubbee ba bëgg ko bëggoon tëj doo xam fan ngay tàmbalee ak fan ngay dale boo dellusee ci wàllu xew yin yàq gi ñu koy yàq ci leen ciy yàq boo waatoon ci wàllu li leen jàppandi wàllu yàq am ndox waxoon naa ko fi wàllu yàq ci wàllu ak jur wàllu yàq loo xamante lu nekk lu nu def rek danañ ci dugal ak yàq ba ci wàllu diine sax dañ ciy dugal loo xam da nga xam ne ak yàq la te doomu aadama ji suñ boroom bindu ko woon ngir mu yàq suñ boroom dafa wax ne yàq daf ko aaye ba noppi ku koy def mu mere la jéppi la bu nu seetloo ci bis yi nga xam ne ñoo dëgmal si muy tabaski aj màkk xew yooyu yëpp façon yàqin yoo xam ne kenn xamul nu tool xam naa jamono bii ñu jëm tabaski ku ci nekk yaa ngi tiit ndax xar dina am ndax xar yi dina mat lu ko waral mooy yàq gi ni yàq ak jur ak jur bu fekkee ne saa bu tabaski jotee li sunu xel di jëpp mooy malihi lan yaakaar mu jox nu ak jur wala muratani lan yaakaar ñu indi fi ak jur buñ ko fi indiwut duñ mën a tabaski duñ mën a def dara lu ko waral mooy yàq gi mu ne Mali de ñoo leen ëpp ay sàmm fuuf xoolal fii nga xam ne moo di Sénégal boo dikkoon tey kilam ndawal lu mu néew néew trois mille francs lay jar boo demoon Mali gën ngaa seer ñetti téeméer walla ñaar téeméer lay jar lu ko waral mooy ñoom danoo téye seen ak jur ñun ñu yàq sunu jur xoolal xew wi am ñu jël lu mat téeméeri xar ñaari téeméeri xar ñu misi ko lekk ko lenn la ñu tuur ko lenn la ñu kii ko foofu xam ngeen nekkoon ñun sunu sunu ñaaray dem sunu koom-koom day dem sunu sunu jur manqué. maanaam un milliard bi nga takk nga jël ko yóbbu ko Mali wala Mauritanie waa Mauritanie jël ko ñoom jëndaat ci xar yaraat ci def ci lu nekk ñun ñu jël un milliard boobu ñu jël xar yanu amoon ñu jël ko lekk ko lenn li ñu tuur ko lenn li ñu yàq ko boo ëllëgee buñ soxlawaatee danañ yóbbuwaat xaalis ñoom ñu indilaatal lu yeneen jur loolu bakkañ te li ko waral mooy yàq ni ñuy foyee ni ñuy reyee bakkan yi dafa ëpp rawatina li ci gën a métti mooy xar yu jigéen yi nii rey dibiteer yi boo demoon xar yi ñuy rey xar yu jigéen la ñiy jaay ndawal ndax la wax mooy xar yi dafa seer loolu nag gouvernement bi waroon na ci teg ay taxes xar yooyu kenn waru koy rey néewunu duñ leen rey waaye di leen rey rek xar mu jigéen mu toll ci ab tëng amagut sax nangam amagut ñaari doom amul ñetti doom ñu rey ko xar moom ñaata seex la waroon a jur ñaata ñaata doom la waroon a am buñ ko yaree ñu rey ko dundam yam foofa amatul benn avantage buy amati ci xar mi xar yi tamit ñu jël fomi nii foyete xoolal léegi ñu dem ba ginaar yi nga xam ne moo nekk senegal mënatuñ koo amati mu doy ñu néew ko fiy lekk ñu ni indil ay ginaar yoo xamante ni quarante cinq suur ngay rey xëy di reyandoo junni ginaar ci wenn xew ay ñaari junniy ginaar ginaar yooy def ngeen ne baax na ñu jël ko di ko rey tam yàlla dëkk bu nekk bu mu bu mu bu mu bu mu sàkk dëkk bu nekk def na fa lu mën a dunde ñoom lu waa dëkk ba mën a dunde nga xam ne mën nañ koo bañ a jëggaani fenn lu waa dëkk ba dunde waa réew ma dunde am na ca dëkk ba waaye nag yàq gu ëpp nag yàq nag yàlla da ko wutalut ab limite yàlla nag dafa taxut woon ba muy bind àdduna ak di ko def di bind doomu aadama yàq daa taxut woon yàq moom kenn mënu koo fàggul amul kenn ku ko mën a fàggul na nit ki jógee maanaam jóge ak yàq maanaam ñu fi doon yàq ñëpp seetlu leen seen àdduna bin fii laata jóge daanaka torox nan xoolal nit ki am na ci ñoo xamante ni daanan fayeeku lu tollu ci maanaam cinquante million léegi tey cinquante mille suñ ko bëggee daanaka mën na koo am ci koo xam ne daanaan la ko fay ci bëccëg benn muy bërekat bi wala muy fubalkat bi wala muy keneen wala muy ku yàq rek ku yàq ku mën a doon rek noonu lay mujje moo tax nit ki dafa yàlla def ko bindut yàq boo gisee cigarette tox cigarette ñu boole ko ci yàq yi mooy yàq nga ci yàq alal ñaata paquet yi cigarette ngay jënd yoo xamante ni ci ci ngelaw li rek la jëm ci ngelaw li rek la jëm ñaata te waxuma la boo gisee borom xam-xam yi boole ko ci ne dafa araam dafa aram ndax cigarette alal ñi ngay jël alal yàlla daa bañ ko yàq loolu daa bokk ci araam dugg ci aram beneen bi ci desaat yow miy tox maanaam falaasu cigarette bi wala euh, xëcc bi ngay génn saxaar si ngay xër nit ki loolu da nga koy lor te lor googu ngay rol ki loolu ku nekk xam na ne techniciens yi dem nañ ba ñoom ñëpp ñu yëg ne euh, kiy tox ki nekk ci wetam moo ci gën a loru sax moom miy tox moom mi nga xam ne dafa toog rek toxul moom moo gën a loru ci tox bi kon jamono ci yàq baaxul bu nu seetoon tey ci wàllu tabaski rek li nuy rey ci xar genn kër danga nga fay dem fekk ñu rey lu mat juróomi xar wala fukki xar yoo xamante ni lañ cay lekk la lu néew lañ cay lekk xar ya wëlbatiku daal di yàqu te lépp tabaski du farata ba jar ñu koy yàq ku mu neexoon sax nga man ko ba noppi bañ koo def ku mu neexoon nga mën a tëbaski ba noppi nga ne duma ko def waaye ñaata lañ ci yàq ci diggante ay xottil ay xale feet la feetu jullit la ci ñaata kenn du wax ne feet du feet feet la war nañ cee def lu lu bégal njaboot gi waaye yàq la yàlla bañ yàlla yàlla dafa bëggul yàq te loolu lépp yenn saa yi nga dugg ci kaadaru yàq boo xam ne kenn xamul nu mu toll ñaata lañ ciy bitt ci ñam ñaata lañ ciy jël aw ñam di ko jox nit koo xamante ni dagg nangami xar nga jël xaaj bi jox ko ay njëkke jox ko ay nangam xoolal li nga xam ne moo di ni ma ko waxee woon léegi ci wàllu xar yi nga xam ne dañuy jóge Mauritanie wala ñuy jóge ci beneen beneen réew loolu yàq rek moo ko def aw xew bis bu nekk ñaata ceet gi ngay ceetal tàmbaleel ci ceet ga waxuma la ceet ga waaye ngoro gi ngay ngore ci ngay tàmbale di yàq ba ci boo ceetal nga tàmbale di yàq booy ngénte nga tàmbali di yàq yooyu yëpp ay yàq yoo xam ne kenn xamul nu mu toll nit ñi leen yor ci teraanga ay yére nit ki kenn du na ko bul solo waaye nag am na ci loo xam ne moom ëpp na dafa mel ni nag ak yàq lay jël maanaam weer wu nekk maanaam semaine bu nekk ayu bis gu nekk nga xotti ay yére yoo xamante ni sa armoire mi ngi fees dell dell dell dell. yow day mujj sax dootoo talati maanaam jaamu yàlla li ngay tal mooy xotti ak saw yaram ci ngay tal looy defara saw yaram daal ngay tal. te nit ki nag li ko waral nag mooy ginnaaw yaramam wi xam na ne lu mu yàgg-yàgg ñaara koy mujj ay sax ak suuf ñooy lekk yaramam wi kooko war naa seetlu lu bare bare bare bañ la caa dugg nit ki nag warul topp rek lu bànnee xam bakkanam bëgg mu bëgg am na loo xam da nga koy bëgg sa bakkan da koy bëgg te fekk ne daa araam wala ñu sib ko sun borom fi ñu toll boo gisee saytaane du bàyyi mooy yàlla bu la bu la dàqee ci araam yi mënula cee jàpp ci yu dagan yi maanaam lekk ba sa biir fees nga xam ne biir dana wax ne ñetti étape nga ko war a def fi ngelaw liy génne fi nga xam ne boo lekkee ndox war na cee naan ak fi nga xam ne lekk gi war na fee dem ak fi nga bàyyi aération bi génne waaye boo lekkee ba sa biir fees sax lool day dugg ci kaadaru yàq lekk ba nga xam ne mënoo dox mënoo jaamu yàlla mënoo def dara lekk la am na ñoo xamante ni seen waxtu la ñuy yàq ñoom ñoom seen waxtu li sëñ bi doon wax majaalisu saqaawi am na ñoom seen waxtu ñoom dañ koy yàq kenn jullit bi nga xam ne dafa jóg sol mbubbam jóge ci këram amul fenn fu mu jëm lu dul damay dox nii rek wala damay taxawaalu rek wala fii rek laa jëm jullit balaa sol mbubbam wala sol ay dàllam di jóg war naa xam fi mu jóg fa muy jëmi tamit war naa xam lan moo ko fi yóbbu ndax ak dundam diineem dina fa yokke wala dara dina fa yokke ci lu jëm ci ëllëg yomal xiyaam bu fekkee yooyu amu ci nag jarul dem mën ngaa tëdd toog nit ki nag li gën a riis ci yàq nag ak gën cee rëccu mooy waxtu waxtu ëllëg di nga jooy waxtu woowu nga xam ne da nga koo toogoon maanaam moyoo ci yàlla waaye jaamu woo ci yàlla waxtu woowu sax dinañ la ko laaj waxantuma laa wi nga doon mooy yàlla bi nga xam ne dërëm bi dugg sa loxo dinañ la laaj nu mu fi duggee nan la fi génne yooyu yëpp ay luñ lay laaj la kon jullit bi su xamee loolu day wane ne kon yàq waru ko yàq waru ko yonente bi sala sala am na ko doon jàpp mu ne ko jàpp ba ci yàq jàpp mu ne ko boo doon jàpp ci texas bi sax ci wetu géej gi sax dañ laa aaye nga yàq réew yi nga xam ne du ñuy jullit sax yàq dañ koy bañ xoolal waa ji nga xam ne nee na damaa demoon ci benn restaurant bi ma demee ma jënd fa ànd ak sama benn xarit bi ma lekkee ba noppi ma desal fa nee na waa ji woo ma daan ne ma da ngeen di fay lii ma ne ko ah lu tax ñu koy fay ñun danoo lekk ba suur desal mu ne déedéet bi ngeen di jënd xamoon ngeen ne lii dina leen ëpp te lii dañ koy betti kon yàq la da ngeen koy fay nga xam ne ku fay jënd di nga jënd lu yem ci yow nga xam ne doo ko betti ji wala doo ko def dara xoolal Sénégal tey ni ñuy yàqe amul benn restaurant wala fenn fooy dem foo xam ne nit ki sax rus naa lekk ba mu jeex ndax jàpp nañ loolu bu ko defee du nekk nit ku kii faaw mu yàq ca dara ñu betti ko ñu jox ko xar yi wala ñu jox ko donte seen wërsëg la. xoola waa ji nga xam ne nee na ci dëkk tubaab bi neena damay dawal oto bi ma demee dawal sama oto dem ba ci bitig bi ma droite noonu bi ma droite fayu ma oto bi ma wàcc di jënd ci bitig bi dara nee na bi may jënd bi may dikkaat police bi laa fekk ci buntu oto bi nee bi ma dikkee bi ma ko waxee fekkee mu daan ne ma sëñ bi daggal ma ticket ne ma dangay ngay fay ma ne ko ah lu may fay man maaluma ma gaare fi ma gaare baax na defu ma ne mu ne ko du loolu oto bi nga dugg ci biir bàyyi oto bi muy ralentil essence boobu kenn consommé wu ko ci dara yàq googu loolu moom la lan lay fayeeku nii bu dee julit nag yow te ñooñu koy def du ni julit yow mi du julit nag kon war ngaa am weneen melo woo xam ne dara du sa dara du yàqu dara waru ko yàq julit bi warut am conseil sax conseil sax ci yàq la conseil maanaam damaa am conseil tey damay nopp lu weer sàngam loolu yàq sa waxtu la te yàq yëpp waxoon naa ko yàq waxtu moo ci gën ndax waxtu borom xam-xam yi dana wax ne kun na waxti ka lu jot sa waxtu def ko bul naan demi après demi ndax xamoo di nga ko fekk wala doo ko fekk. am ñoo xamante ni yàq jikko la ñuy def li gën a bon mooy yàq jikko nit koo xamante jikkoom dafa yàqu ba kenn mënatu koo defar nit ñi société bi soxlaatul nit ki te fekk ne mooy naan luy yàq jikkoom wala mu koy tox wala muy def luy yàq jikkoom jikko ju yàqu nag yàlla na ci yàlla musal. alal ju yàqu bon na waaye jikko ju yàqu ndax alal ju yàqu mën nga koo liggéeyaat ba am ko waaye jikko bu xasee yàqu moom kenn mënatu koo defar wala boog boo amut sens doo defar waat kon nag yooyu yëpp jullit daf ko war a moytu war koo kii li nga xam ne yàlla santu ko ko dëgg la yàlla moo ko teral muy rey nit te loolu ku ci xool xool mbindeef mi nga nar rey ngir ngir jariñoo ko xool rey ni mu mel ak melaw rey ni mu mel ak metti gi metti bala ngaa ci sa biir da ko xool bu baax rawatina nag mu lew la nga jëmale ci sa biir lewut loolu moom dara dara gënu koo doon musiba dara dara dara dara jëru ko dara dan ne suuf wi nga xam ne dafa dunde ci lu lewut suuf woowu li gën a yey ci moom mooy ëllëg lakk sawaraa gën a yey ci suuf woowu bari na borom biir booy gis naa biiru patron la te fekk ne la muy dunde dara lewu ci la muy lekk lewut la muy sol lewut la muy naan lewut loolu nag dara dara dara àddina jaru ko mbokk yi yaakaar naa ne waxtaan wi fii lañ koy yemale buntu yàq daal ñëpp xam nañ ko lépp loo xam ne ëpp na la te mënoo koo jariñoo daanaka day xaw a dugg ci yàq tabax yi ngay tabax di tabax tabax yu baree baree bari ay kër yu bari nga am ko daanaka day dugg ci xeetu yàq sax te ëllëg yomal xiyaam nee na yonante bi nee na ku tabax lu ëpp sa aajo ëllëg dan lay yan la ca des nga koy sukk sukki nga koy yan dal nañ ci yàlla musal ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp sëriñ Fallou moo ci caméraman bi soxna Awa moo réalisé émission bi ki ko doon monté soxna Khady Niang ñu jox leen ci yeneen i jotaay wasalaamaaleykum wa wa barakaatu.